bu baax a baax di sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp ñu teewoon ci open press bi ñi bëggoon teew ta teewuñu waaw di jaajëfal Sénégal yëpp monde làmb ak di jaajëfal waa wasaare ci sa tur bu baax a baax Ouzin jërëjëf waay. Euh, ñu gis ne làmb dafa tojoon làmb tijji boobaa ak léegi bi ngay jógee arène nationale defoon exploit bu doy waar tey nga ñëw waa daje xale bi nga xamante ni mooy caatu fora naka nga waajee ak say mbokk. waaw comme niñ doon waajee rek. ni maanaam ba bañ ne Ardo day takk ngem ba léegi wax dëgg fa yàlla seen loxo seen xel seen xol seen doole lépp dara jógul ci man quoi waaw kon mën nañ ne am nañ lépp pour mériter li ñuy wut kon yàlla nañ ko suñ borom defal daal ci ndam bu sedd guy barke sëñ Fallou Mbacké waaw. dama gis na boo jógee waa Passe lépp jóg boo jógee waa Inter jóg boo jógee waa Golf jóg sa diggante yow ak ñoom lan la. waaw parcelle dafa dafa fii nag laa juddoo quoi unité dix si parcelle laa juddoo yaroo fii nii sama kër maam unité deux waaw golf nag ak parcelle benn la dañ ne sax ñun fii nii xam nga mën nañ ko jàppee comme ay cité lu bari nii xamuñu ko jàng ak liggéey lañ xam lu bari bari moo tax fii ñu bëri ñuy bu ñuy passé seen jeunesse dañuy jéggi tali <laughs> waaw boo déggee Pikine ñu ngi naan jéggi mais ñun dañuy jéggi tali pour dem découvrir beneen monde quoi ndax lu bëri fala am vie famille bi bàyyi faal bi lu bari daal wax dëgg fa yàlla foofu lañ ko gën a xamee moo tax ñun tamit def nañ fa suñu jeunesse lu bëree bëree bëree bëree wax dëgg fa yàlla golf xam nga di jaajëfal waa golf bu baax a baax looloo tax wax dëgg fa yàlla ñoom moom dem ba bokk seen biir mën nañu maa génne golf ndax dañ naan doomu parcelle booy golf moom lañ may dànkantaleel waaw te loolu du deñ man ak ñoom ba waaw ba ba ñuy sàngoo suuf daal incha allah day rafet rek. tey open press bi naka nga ko dundee nga woote say moroom ñëw say mag ñëw say rakk ñëw say am say am di jàmm say dëkkandoo naka nga dundee tey open press bi. waaw di santaat rek di santaat ndax euh, du guleet du tay kase mbapat daan na daan na gënoon a yànji nii mais nii la ko suñ borom bëggee te tey tamit wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ba ñu gisee ku si mel nii bàjjanu gox mu bàyyi yitteem yëpp ñëw ku si mel ni tonton Bas Fatou bi ak waa groupe nopp sa jëkkër ñoom ñëpp wax dëgg fa yàlla ñoom ñëpp teew nañ jàppale ma si ko si mel ni ñoom may njaay associé xam nga ñoom ñëpp daal wax dëgg fa taxaw nañ ma nañ ma war a taxawoo ñow nañ jëmal bés bi yëngal ko ba mu yëngu neex na wax dëgg fa yàlla kontaan nañ li des mooy dem jëli lu ñu moom yox la jëli ko yàlla ñu yàlla may ndam waaw bu baax a baax di leen tàllalaat loxo ñu jàpp si bés bi di si woo si mel ni Lat Diop ñu ko ñu ngi koy bu baax di ko wax bi bés bésam la waaw Pape Niang tey ni mu ñëwee wax dëgg fa yàlla bëri na doole trop moom chaque jour moom wax dëgg fa bu ñu gersoo dañ koy gis bu wéetuñu benn yoon ndax Pape Niang waaw ku si mel ni Cheikh Omar mbay waaw Jibi Kayta waaw moom day nekk ba Italie wante day mel ni mu ngi fi ndax day yabal bu day yabal sax ñu ko fi teewal kon fa kooku ñu ginnaaw benn yoon ak Alima Jabaram xam nga di di leen jaajëfal bu baax a baax gis nañ bu baax nañ ma taxawoo yàlla na ko yàlla mottali. woote bi woote bi moom daanaka teel na ndax ñi nga woo ñëpp bu ñëwee ci pind bi lañuy ñuy mais bi ñëwee gis nit ñi lan nga xalaat ne moom nga gën a mën a yokku euh, pour pour pour jëmmal sa bopp yokk sa bopp doole ba bés ba mën a jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Thiatou Fora. ah ainsi nii loo fi yokkul ba léegi nii est-ce que jar na yokk yaakaar naa ni loo fi loo fi def. fi mu waaw yàlla ah yàlla yàllaa si des daal yàlla noppi na yàlla ñu yàlla may ndam si bés ba. waaw pare nañ ni ñu war a pare waaw te duñ tegg suñ tànk ba keroog suñ boroom di ñu may ndam incha allah. lan moo waral nga jël caatu fora ndax dafa nekk xale boo xam te dafa nekk ci yoon mën na xeex mën na bëre day def ambiance lan moo waral nga yàlla jëli jëliwu ma ko jëliwu ma ko làmb moo ñu boole rek làmb moo ñu boole. est que yoon la woon. non ko bëgg lu amateur yi bëgg day taxaw kenn mënu ci dara. parce que lu ñëpp wax mooy dëgg daan naa ko dégg ci groupe whatsapp yi ardo caatu fa ardo caatu fa ange bi combat bi dox bi yàgg na. yàgg na yàggul parce que si moom la desee woon cinquante mille defe naa moo ñu xawoon a baare ku si mel ni Omar Saliou doxoon na si ay jéego yu yu kii quoi moom moo jëloon sax ñaari photo yi dugal ko si groupe benn làmb après gars yi di si commentaire mooy may envoyé commentaire yi quoi ma xam ne tamit gars yi bëgg nañ combat bi man bañ ma ko envoyé sax. maa ngi naan ko lii taxawul de taxawul de mu ne ma non man maa ko def pour gars yi wax si quoi parce que combat bu neex la ma ne ko waa bu neex la faral li ñuy def yàlla def combat bi taxaw ñu si ñaan yàlla suñu borom defal ñu si ndam bu sedd gi. est-ce que xam nga ko. Caatu Fora waaw comme ni ko gars yi xamee rek maa ngi koy gis si làmb ji rek. nan la ko gars yi xamee gis ko mu bëre wala da nga koy suivre. boobaa léegi bi sa combat ak moom taxawee est-ce que jot nga koo tàppee jéem a xool kan mooy Caatu Fora. waaw loolu mun mënut ñàkk quoi mënut ñàkk mënut ñàkk loolu def nañ ko te tamit waaw mooy loolu daal. mooy loolu mooy la. mooy loolu maanaam ñun li ñuy suñu bopp moo ñu gën a moo ñu gën a intéressé que moom li muy indeeg yooyu noonu ñun ñu ngi focus ci li def quoi waaw. état de forme bi fu mu toll. Euh, Bougane. yow man. ah man de mooy tiddi de <laughs> non fan la toll maanaam fi toll nii fan fan nga toll instant bi pare nga wala am na loo yokk. dégg fa la wax ku parewul ba heure bii nii kon jaratul ngay ngay ngay préparer mais mooy loolu ay ndaw lañ di wut yàlla nañu yàlla may ndam quoi. wàllu mystique parce que sànq damay ñëw gis gars yi di sulli man leen fii du la ja ah loolu xanaa kon nga woo si ko doon sulli nga laaj leen man nag yooyu comprendre duma dara. ah daal comprendre ma si dara ku si mel ni daal ñun am nañ ay xaas ay tufli mu tooy kii moom mooy tufli bàyyi ji tuflil ma def nii loolu laa ci am barki sëñ Fall waaw mu nekk nit ku baax ku ñàkk ki ñaan jóge ba Louga xam nga di jàppale jeunesse bi waaw jeunesse bi quoi jeunesse bi lay jàppale nekkul sax si maanaam li muy li muy li muy xaatim di jox gaay mi maanaam ci li muy gis ni lii kat war na dem mu ne la kaay defal projet lii wëg lii wëg lii xam nga des fois <laughs> di gars yi dañuy bëgg xaalis sax ñëw di ko tooñ naan ko nii bàyyi ji li dooma ñaanal ma am junni mu yëkkati ni suñ fàllu daan def ne la am tuf nga dem waaw jox la. waaw nit ku baax wax dëgg fa yàlla lépp jooyuñu dara wax dëgg fa yàlla mi ñuy taxaw si bépp côté waaw doon nit ku baax taxaw ñu jugee ba luga waaw bokk si famille bu baax a baax a baax waaw di di siyaar waa kër. maam Cheikh mbay ñëpp maam Cheikh Mbaye ñëpp ba ma fa duggee ba léegi wax dëgg fa yàlla ku mu xam ko baax dina dem ne ma tuflil ma sama mbër mi wax dëgg fa yàlla te ba ba léegi wuñ ko ñu ngi santaat bu baax a baax yàlla na yàlla xeeb dolli te ba a xajal seytaane suñu diggante daal ba ci sëñ Fallou. ñu ngi koy ñaan lan ngay wax ngay wax ki nga xamante ni mooy Thiatou Fora ndax moo ngi lay seetaan. Thiatou Fora mooy li may wax sama bopp rek mu waajal làmb la ñun ñëpp ak ñuy xaar am na loo xam ne buñ la ko officielé te nekkut lu nice danga koy jéem a teggi daal muy moom muy man. muy comme lan. comme buñ nee kii kat dafa nangam kii kat dafa nangam. te mu yegg ci bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko muur. kon day day mel ni que dëgg la. te am na loo xam ne rimeur la dañu koy bàkkee ñun mbër yi maanaam violence bi si côté boobu lay waxee quoi dañ naan ñu mbër yi dañuy def violence ñu jéem a xool ndax ñun daa am ñu topp suñ ginnaaw ñu topp suñ ginnaaw nag ñun ñëpp ci am du ku nekk maanaam moo tegu quoi mais képp ku ñëw si yow di ànd ak yow te yàlla tax kooku boo amee loo ko dimbale si maanaam conseil mu xool la le droit chemin da nga siy def sa aqulahi taala te xam ne yàlla moo leen boole te yàlla lim boole du hasard quoi am na nit ñoo xam ne si ñun lañ mën a baaxee ñu jëm leen a baaxal ci as tuut lu ñu am si lu baax donte ne baaxuñu sax mais ñu bañ leen a nax teg leen ci yoon bu baax tax baax mooy njariñ quoi waaw di lancer message mbir yëpp ñu topp seen ginnaaw. nañ leen a jéem a teg si yoon naan leen nii la du nii parce que man wax dëgg fa yàlla ci loolu lañ ma tàggat quoi man bu ma gisee kuy def naka sudul noonu dama lay woo la faalkat boo defoon nii mooy gën a rafet ñu si di waxtaan xam nga di diisoo ndax nit ànd dañuy jariñante quoi waaw loolu laa gis maa ngi tubaat bu baax si kàddu yi bu dee day déranger wala day dérapé jëlee ma ko neen dama ko jëlee ni maanaam am na loo xam ne dañu ko bàkkee te waruñu waruñu ñu fa waruñu ñu fa séntu waaw bu si desee loolu na préparé mu ñëw ni mu doon ñëwee ma ñëw ni mu doon ñëwee yàlla may ma dam si kawam ñu ñëw feete ko gaay rek waaw xaaraat leneen lu nekk si kanam. combat bi xeex bi dina ci am. waaw làmb lañ wax làmb lépp lépp mën a am. nañ xaar parce que dañoo gis boo commencé xeex benn ñaar sa loxo day sumeeku est-ce que loolu préparé nga ko. waaw làmb la rek xam nga làmb moom chaque jour ak nu muy ñëwee mais ñu ngi sant daal ñu ngi sant waaw nañ ñu xaar si tous les plans en tout cas daal pare nañ. bu ñëwee ñu bu ñëwul mu ñëw saa jaggi mi jaggat saa jaggaani mi waaw. mais est-ce que bés ba est-ce que bés mën nañoo xaar kankurang yi ñëw. Hmm? bés ba est que mën nañoo xaar kankurang yi ñëw. waaw Mbour dañ koy tere de dañ koy ah, de waaw mais dara dara sëñ daal ambiance la kaf fooree ku ñëpp ñëpp daal xam nañ ni. kankurang Mbuur la am Casamance la mais tamit du te booy bu ñu bëggee foo tamit mënuñu leen ko an ah. mais ñun dañoo bokk ci foofu quoi di leen nuyu au passage aada bi bëgguñu ku koy foowee wax dëgg fa yàlla ta tamit booy xam nga mu gënu leen tere dara mais tamit làmb la quoi waaw gars yi mënuñu leen tere ñu def benn jour la bu ñu fëggee foo nañ foo bu ñu bëggee ambiance nañ ambiance en daal rey nit tere ak jàdd jàddal luq-luqaleeg yooyu noonu waaw. waaw dëggal jubal leeral daal dem jëli lu ñu moom. si farata ci côté nu mu ñëw. ci côté mobilisation bi fan nga ci toll. mobilisation bi ñu ngi siy woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp ku si mel ni Cheikh Omar Mbaye ñu jàpp si biir rek ñu jaaxal ndax boo yëpp bëgg nañ dem stade mais boo gisee booy ñu bëgg a jàppale yëpp seen loxo jotu seen ginnaaw bëgg nañ ay kaar xam nga bëgg nañ biir yi six biir bolo bologu biir lañ bëgg waaw. loolu ñu ngi si woo Lat Diop Lat Diop six bologu bie lañ bëgg Lat Diop six bologu bie lañ bëgg Lat Diop tamit wala boog waaw bu dee dëgg la waaw dafa war a doon dëgg quoi waaw dafa war a doon dëgg boobu ba tey ñu ngi sa ginnaaw boobu ba tey waaw boobu ba tey ci boobu ba bataay ñu koy xeex ba mu yegg si fii nii waaw dañ lay joxoñ duut la baaraamu tuuna duñ la mës a raay waaw dañ lay wax waaw tamit waaw jàppal si gaay gaay yëpp dañoo bëgg a dem stade du man quoi mais gars yi jàppale leen ñu dem stade ñun lu war si ñun yëpp yaa ngi koy def ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mais booy dañoo war a dem stade Lat Diop ñu ngi siy woo ku si mel ne Alima bu Lat Diop xam nga kii Papa Ndiaga bu Lat Diop ñu ngi lay woo ci biir ah Cheikh Omar Mbaye bu Lat Diop ñu ngi lay woo ci biir yi ñu ngi si woo Waali bu Lat Diop ñu ngi lay woo ci biir xam nga Pape Sall bu Lat Diop Goro Mbaxal bu Lat Diop ñu ngi lay woo si biir boo yëpp dañoo war a dem stade xam nga te seen loxo di jotu seen ginnaaw dañoo war a dem yëngal gësam indi ndam li fii nii loolu rek lañ bëgg xool nekkaat suñ kanam di ko liggéey mooy loolu waaw noonu la demee. déggal booy soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tëj. waaw kàddu yu mujj salaam siyaar bégee bëre rap reggae fi ñu jógee dafa sori ay réunions mënuñu ñu téye ndax dañu mën a bëre teg si soxor kale attaqué ko ñu gagné muytuma damay reye waxatuma waxu gagné maa leen mën dafa leer ni ndellu abba dama xaw a dóor leer bu dul jaag di ndaama dina tar ba nga fàttaliku njulli ndiga foog ne dañ koy daggaat ndiga yow mi doo gaat doo dem kon toogal bu dee sa biir dafay daw simil sa tubay jonkal is your boy la niggas waaw di gërëm ñëpp lii lañ xam quoi kaf xam nga sport la sport waaw di gërëmaat sama kilifa bi bu baax a baax waaw di gërëm ñëpp ñu si teew waaw yaa ma gën a xam waaw di jox ko si kàddu kilifa gi nuyu na waaw ñoo ngi lay fay ku baax naka yaram baa yaa ngi si jàmm bu baax a baax alhamdulilah sa booy mu ñëw def open press ñu gis sa teewaay lan moo fi doon sa teewaay tey ah waaw Ardo moom yàlla moo ñu boole depuis mën naa ne yàgg na yàggul waaye nag ba ñu ba ñu xamante ba tey euh, dafa jàpp te ba waaye tamit di góorgóorlu bu baax a baax a baax nit nag moom amulul bësam waaw ndax koo xeebal bësam mu xeeb la loolu moo waral ñu jóge ba Louga ñëw ci euh, teew fii ngir accompagner ko jàppale ko ci suñu li ñu yàlla dénk te am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax ndax moom dafa baax moo soxlaa dara sax mënu ma génn sax moom laay woo ardo nangam laa bëgg du ma xam ba xam mi ngi entraînement du ma xam ba xam sax fu mu nekk day dem dagg loolu lu mu doon def da koy dagg même mu nekkoon entraînement da koy dagg ñëw ci man sama oto day jël ma dem lavage di raxas bu fa jaaree day dem fay ko su ma ñëwee di fay dañu naan ah Ardo tudd Ardo jaar na fi kon moom nit la koo xamee ne ku baax te yàlla nag mooy xam di boole te ñaan yàlla tamit ci bësam bii suñu borom bi defal ko si ndam ay ndam topp ci te mu ànd ak jàmm ak salaam yàlla na doon it dem ba nekk roi des arènes te am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax ndax amaana tey jii ñi ko nekk wala tey jii euh, ki ko nekk euh, amoon na ngëm-ngëm bi waaye tamit suñu borom moo ko ko wërsëgaleel te doomu adama la te moom mii doomu adama la kon nag ki nekk roi des arènes tey ni mu amee ngëm-ngëm ba net ba doon ko tey moom mii am na ko te incha allah am nañ si yaakaar ne yàlla dina ko defar dina ko ko defal incha allah ñoo ngi koy ñaanal bu baax baax baax daal mhm. ñu ngi koy ñaanal bu baax kàddu yu am na solo xanaa nag dañuy woo ki nga xamante ni mooy président supporters yi euh, mu mu mu mu wax ñun naka la ñuy waajee keroog bés ba ndax ndax bés bi defe naa ni du ndax ay xale la yoo xamante ni dañoo bokk lu ñu bëgg bokk gëm ñu bàyyi ki nga xamante ni moo teewal président supporters yi mu wax ñu bés ba keroog ñoom naka la ñuy waajalee bés bi ak fan lañ toll ci wàccaay wi. Euh, président fans club bi maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay ku baax waaw comme comme li nga wax rek. xëy na président bi daa génn sax te man mu ne moo wax xanaa ma wax ci li ma ci mën a wax rek comme li nga laaj rek làmb ji niñ koy waajal. Mm-hmm. depuis ba mbër jëlee avance bi ba ñëw wax ñu jël naa avance. Mm-hmm. ñu ne ko koo am mun nañu caatu fora ñu ne ko caatu fora moom loolu. Mm-hmm. làmb la. ñu ngi soog a am làmb nag. waaw comme li wax rek làmb ji ñu ngi koy waajal bu baax. làmb ji luñ ko fonkee fonkee wuñ ko sax ka yeneen làmb yi. mais dañoo gis waajub komba dafa metti booba ak léegi mbër mi dina ci sonn mais supporter dina bokk ci ñu ci gën a sonn wàllum t-shirt yi wàllum car wàllum billet mobiliser booy fan ngeen ci tool waaw loolu ñu ngi ciy dox comme Ardo Sànq wax na ko ñun ñi nga gis fii kese te ñun ñi xam nga participation yi su ñun lay njëkk a démarré ñun ñoo njëkk a génnee suñu poos nga yi nga so yi nga gis nii ñun ñu sol nii ñun ñoo ko génnee suñu xaalis jënd ko kenn fekkuwuñu ci mais duñ dàq kenn comme Ardo mu ngi koy wax sànq ay lab Lat Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen woo ci billet yi parce que booy yëpp dañoo bëgg a dem stade te ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw. yaa ngi comprendre bëgg nañ daal ñu jëndal ñu ay six bologu billet te xam naa sax six yëpp buñ ko indee sax fii du doy parce que Ardo gis nga boo ñëwoon ci open press bi macha allah ñi ko topp te am na ñoo xam ne ñëwuñu ñii ñu ngi war a jugee Mbour ñii war a jugee Louga ñii war a jugee fu nekk war a ñëw ci làmb ji yaa te ku fii ku nekk am nga mbokk te boo ko waxee ardo day bëre rek fu mu mënti nekk day ñëw mhm. teewal ko ndax moom moo liggéey loolu. ndax bu liggéeyul woon loolu ñii duñ jóge ba Mbour ñii jóge ba Thiès menum ñëw ci open press bi rek nara a mhm. loolu moom moo ko liggéey. kon daal ñi ngi woo ñëpp ñi ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ñu ci làmb ji parce que soxla nañ ko torop soxla nañ ko torop ñun buñ ko mënoo ñu ñoo ko defal suñu bopp yaa ngi comprendre mais suñu loxo jotul suñu ginnaaw ñi ngi ñoom Ibra Mbaye ñëpp ñu ngi leen woo bépp bon volonté ñu ngi leen woo ñëw dàpp jàppale ñu ci làmb ji parce que soxla nañ ko torop waaw làmb ji daal ndam lañ ci soxla te bu ma juum ñu ngi soog a bëre drapeau te avant grand la ñu bëre te Ardo dafa war a eh waaw combat spécial la dafa war a bëre daan indi fii drapeau bi yaa ngi ñu zimele koñ bi nekk comme ni ko daan defee parce soxla nañ ko torop ndimbal bi moom ci la ñu gën a ñu ñëw jëndal ñu billet xam nga booy dem stade kaar tamit fàttewuma ko kaar ku mën a jàpp ci billet ñuy jàpp ci kaar ñu dem stade parce que boo amee billet te amoo lu yóbbu stade tamit day doy waar soxla nañ billet soxla nañ kaar waaw gis ngeen soxla nañu billet soxla nañ kaar ay xale lañ yoo xamante ni dañuy soxla ndimbal ndax euh, làmb dafa metti ndax boo xale yi ñu buñ fayee ko buñ ko jëlee séddale ko ci koñ bi mu jeex yóbbu demaguñ ci sëriñ bi joxaguñ ñenn ñi séddaleeguñ ko jàppale daal soxla nañ ko ba comme ni mu ko waxee ku ci mel ni Lat Diop moom def kat lu baax la maa ngi ci nuyu Waly Papa Ndiaga ah gars yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax ñoom tamit ku ci kuy jàppale Lat jóob lañ maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje dafa loo faate ku ci mel ni euh, Alaaji Cheikh Aziz la ñuy ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko suñu borom dolli gërëm dolli ay leer di ñaanal ki fi nekk muy Mamadou Moustapha Fall waaw mi nga xam ne wax dëgg fa yàlla dafa mat li mu doon njaboot gépp uuf na leen ni mu leen war a uufee ku ñëw ndeysaan da ngay fekk da ngay foog ni sax ku tedd ki nga fa fekk. waaw lépp maanaam macha allah daal di ñaanal waa Xayra faal yëpp di leen tàllal loxo pour ñu ñaanal ma su mel ne sëñ am di Lapsoli waaw waaw waaw Lapsoli de série Aziz mu Amadou Moustapha Fall ñu ngi koy béggewaat bu wér di bégge waa kër gi yëpp ay ñoom Serif Assane su mel ni waaw ñëpp daal sëñ Aziz Fall si Baye Sall Aziz Fall Aziz Aziz Aziz Fall Aziz Aziz Aziz ñëpp daal waa Xayra Fall. gis ngeen jërëjëf yéen ñëpp foofu la ñuy joxe dig daje ba beneen yoon jaajëf kàggu kontaan baax baax.